ñu dem benn yoon ci invitation boobu nga xam ne Macky Sall daan na koy woote ndax ñoom gis nañu ne Macky Sall jamono jii li tax Sénégal ànd kook daal Macky Sall nekku ci journal bi nee na rapport de force bi kon jamono ji mën nañoo wax ne dafay wéy diggante Macky Sall ak coalition Yewwi Askan Wi yéenekaay gi ne na du coalition Yewwi Askan Wi ñoom rek ñoo lank ba ñu wuy ji maanaam ci invitation bi Macky Sall invité ci lu jëm ci wàllum 4 avril bi ndax ku mel ni Aminata Touré moom tim dafa daal di lànk ba tëddal sa naaj waa ndax moom Mimi Touré daan wax n jamono ji li nga xam ne moom lay sàkko maanaam mandat député bi nga xam ne dañu ko daal di parti ci loo xam ne jaarul yoon te Macky Sall def lu ni mel loole la bëgg ñu daal di ko koy delloo waaye tamit moom Aminata Touré daat nay fàttali Macky Sall na ko élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal waroo cee bokk yéen kay gi de la sa ne na tension politique bi nga xam ne moo am ci réew mi moo jaaxal loolee moo jombal ñi nga xam ne ñooy waa secteur privé bi ñoom nag nee nañu bassa nee nañu mbir mi dafa doy ndax daal di daw Pierre Atépa Goudiaby jëm ci procès bi dox digganteem ak Ousmane Sonko yéenekaay gi de Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu tey jii 3 avril mooy nekk discours ba mujj boo xam ne Macky Sall dina ko def en tant que président de la République maanaam discours tàggatoo moom la Macky Sall yi def tey jii ndax Macky Sall pare na ci réew mi discours 3 avril bu mujj moom la Macky Sall yi defal tey jii journal bi moo xëy di ko xibaar yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu bi nga xam ne war nañu ko amal ci 4 avril bi lu toll si ñeenti junni ak ñaari téeméer ak ñeent ak ñaara ci ay takk der yoo xam ne danañu daal di défilé waaye lu toll si ñeenti téeméer ak fanweer ak benn ci ay oto yoo xam ne dinañu ko génne lu toll si ñaar fukk ak ñaar ci ay aéronef yoo xam ne danañu ko génne ak lu toll si juróom benn fukk ak juróom benn ci ay fas lu toll si junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci élève ak ay étudiants civils yoo xam ne dina ñu bokk ci défilé bi yéen kay gi di réew mi ko di jeex xëy ci procès appel Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy par parquet bi lan moo tax ñu def appel loole moo jaaxal gaa yi te ku nekk am na sañ-sañ daal di sampablaaj ne parquet maanaam lan lay wuti ci ñaari nit ñoo xam ne dañoo jotee ci lu soxal wàllum diffamation ba procureur bi di def appel loolee lan moo ciy yoonam ak lan la ciy wuti lii nag dafay jox dëgg ñi nga xam ne ñooy wax ne maanaam mbir mi dañu seerax wàllum politique ak ñi nga xam ne ñooy wax ne maanaam harcèlement moo am jëmale ko ci Ousmane Sonko danañ may dëgg tamit ñi nga xam ne ñooy wax ne ñii ñoo ngi def ay dëbbal-dëbbal ay manœuvre ngir na xañ Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle 2024 ba tey ci di Rewmi Quotidien Alassane mi nga xam ne mooy njiitul Ligue sénégalaise des droits de l'homme daat nay wax ne askanu Sénégal jamono ji dañuy njort ne Ousmane Sonko dañuy def acharnement ci kawam te nag bëgg koo xañ ci élection présidentielle 2024 loolu la askanu Sénégal daal ma nga ca te naa ci élection présidentielle 2024 maanaam Macky Sall pare naa ci yéen a kaay bi nee lu toll si ñaar fukk ci nit jamono ji déclaré nañ nee nañu candidat la ñu loole nag li muy firndeel mooy opposition bi ma ngi xàjjali ko dañuy gën a néew doole yéen kaay gi di wal fajiri xëy diñu xibar na ñu Serigne Assane Mbacké mi nga xam ne ma ngi ci kaso bi jamono ji ay mbokkam mer ñu ba maara détail yi doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi ñoom nag nee nañu Assane Mbacké bu ñu ko libéré wala maanaam danañu wàcc ci mbedd mi yéen kaay gi di bés bi nee na su dee am na ñenn ñoo xam ne ñoo mer ba maara détail yi mooy médecin yi maanaam syndicat bi di commerce ndax ñoom dañoo tëj seen benn natango ci lu jëm ci mbiru suma assistance mbiri Ousmane Sonko ya dafa am benn médecin boo xam ne ba léegi dañ ko sàtteeg loxo loole moo tax médecin yi mer ba mara détaillé ñetti fan yi gerew la ñu fas yéene amal yéen kaay gi délibération nee na Ousmane Diagne bu mafia kàcci kàcci tey jii dañu ko convoqué maanaam ci diwaanu dikk yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na xeex bu metti moo am ci diggante nappkat yi dëkk Mboro ak nappkat yi dëkk Kayara journal bi nee na am na ci ñu bari ñoo xam ne am nañu ci ay gaañu gaañoo yéen kaay gi nee na ay gaal ak ay filet yoo xam ne dañu koo taal yéen kaay gi di Rewmi Sport xëy duñu xibaar maanaam génn ko àdduna njaay drapeau